أنني خير قديم المصطفى فإنني أخدم بما اصطفى أخدم إلى دخول الجنة دار الخرار والمنى والمنى من سنى أنه يكون أبدا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 waa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bu ñu sante yàlla sunu borom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sant maulana xaadim rasul ñi ngi leen di nuyu nuyób lislaam te di leen siyaara te di leen baalu aq di baalu aq ñépp di jiital ci nuyoo bi sëriñ mun tax mi nga xam ne moo fi toog jataayu xaadim rasul di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te ci teg kilifa bi bu ne kilifa jataay bi mooy kilifa ki waral kilifa yi ñi aju ci waral jataay bi muy sëriñ Sidi Mbàkke mu suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu borom kër gi di kilifa ak jataay bi di sëriñ Cheikhouna Mbacké mu Cheikh Abdoul Ahad ak rakkam yi fi nekk yépp gannaaw loolu ñu ngi nuyu mboolem kilifa yi fi nekk soxna yi di ci jiital soxna Maymunatu Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad ak rakkam yi fi nekkal yépp ak nun mbokki taalibe yépp gannaaw loolu ñu fas yéene tàmbali jataay bi laata ñuy ñëw ci ni jataay bi di tëddee dañuy koy ubbee alquranul karim ñu jox sëriñ abdullahi jaxate mu jàngal ñu ay aaya yu néew ci alquranul karim ñu barkeeloo ko ubbee jataay bi kon sëriñ bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ay jikko ak ay jàngale yu tegu ci xam-xam yoo xam ne nit ñi danañ ci mën a jariñu ngir ñu koy laytaaye màggal gi lii bokk ci jataay yi nga xam ne at mu jot dañ koy amal ci bi nga xamee ne Serigne Sidi joxe na ndigal ci ñu tàmbali liggéey bi boobu ba léegi jataay bi daaw ñu defe woon ko kër sëriñ Moustapha mu Cheikh Abdoul Ahad tey jii ñi ngi fii ci kër sëriñ Cheikhouna Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ngir fas fi yéene amal jataay boo xam ne dañ koy ànd ak bokk yi fi teew waaye dañ koy ànd ak mbooleem taskatu xibaar yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo yor ay sit internet ngir fu waay mën a nekk ci àddina bi man cee jariñu mën a tànq bu baax a baax ci njàngaleem Serigne Touba moomu ak ci jikko yu tedd yi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad làmboo woon na ko kon su ko defee comme ni ngeen doon déggee programme culturel bi ci média yi fan yi thème bi nga xam ne joxoon nañ leen ko ñu fas ko muy thème général bi nga xam ne moom la commission bi tànn muy at tarbiyatul xuluqiya fi taalimi cheikhul xadim kama jasadaha cheikh abdul ahad mbakke waaye loolu xam ngeen ne mooy thème général bi waaye dañ koy wutal ay doom yoo xam ne ci yooyu lay juddoo ci loolu nag ci lañ ko tànnaloon ñett ñetti doom yu ci juddoo yoo xam ne sudu bokk yi ñu toogal insha allah ñoo war a indi tomb yooyu ngir fas ko yéenee waxtaane bi ci njëkk di makaanatul qiyam wal axlaaq fi lislaam taxawaayu jikko yu rafet ci lislaam loolu sëriñ ahmadu mbakke daarul musi moom moo ñu koy moo moo ñuy indil tomb boobu su noppee ci loolu ak e, tomb yi mu ko indil ci biir tomb boobu mu war a waxtaane muy ahamiyatul xuluq xuluqul azama maanaa yitte yittey jikko ju rafet ak xeeti xeeti jikko yi ak meññet yi ak jikko ji ñaaw yooyu tomb lay lay lay war a indi waaye loolu lépp it incha allah kenn ku ne ci ñoom da koy tënk ci ñaar fukki minute ak juróom incha allah ngir waxtu wi ak euh, ñi nga xam ne dañ koy jàllale te dox ci su noppee sëriñ Fadilou Sylla Daraman moom mooy ñëw moom it euh, indil ñu tomb bi nga xam ne moo topp ci tomb boobu di dawrul ilmi fi taxsiisil qiyaamil xuluqiya tolluwaayu xam-xam ci defar jikko dëppale ko ak dunduk Cheikh Abdoul Ahad Mbacké loolu lañuy ñuy waxtaanal moom Serigne Fallou Sylla Daraman loolu it day mën a tomb topp sës ci tomb bi nga xam ne moom la Serigne Ahmad wax ndax sëriñ Ahmad bu fekkee waxal nañu ci taxawaayu jikko yu rafet ci lislaam mooy lan tekkil ju ko sëriñ Fadilou si la ñëw wax ñu ne tolluwaayu xam-xam ci defar jikko dëppale ko ak dunduk Cheikh Abdou loolu dina dina am solo lool waaye tamit su noppee sëriñ Xaadi Jaxate moom mooy ñëw indil ñu tom bi nga xam ne moo ci mujj muy alsiyaasiya wal xiyamul xuluqi taamalaat fi mawqifi Cheikh Abdul Ahad maanaam politique max naa doxaliinu àdduna ak jikko yu rafet taxaw seetlu ci taxawaayu Cheikh Abdul Ahad ci wàll gi maanaam doxaliinu àddina ak politique nan la ko Cheikh Abdul Ahad euh, dundale woon ak ni mu ko jëmmale woon ak moom rôle bi nga xam ne suyee woon na ko ci te ñu doon lu ñu soxla ci jamono ji loolu la ñu sëriñ Xaadi Jaxate war a indil incha allah kon su ko defee ñi ngi ànd ak mbooleen rajo yi nga xam ne ñi ngi fi di bennoo euh, da koy def direct Sud FM di ko def direct Darul Muxti Sik FM moom it di ko def direct Walfajri di ko def direct Lamp Fall FM di ko def direct RTS di ko def direct rajo jant bi ak RFM ñoom dañ koy enregistré incha allah danañ ko tegaat site internet yi fi nekk tamit mooy Murid Info mu ngi fii di ko jël waaye Touba Vision mi ngi koy def direct Touba siiwal mi ngi koy def direct tubaa Info mi ngi koy non siiwal mi ngi koy jël tubaa Info mi ngi koy jël Alxadimiya mi ngi koy def direct Guy Mbind TV mi ngi koy jël moom it ngir war koo jàllale kon yaakaar naa ñi ñuy topp danañ ci mën a jariñ bu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 ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci kanamam di ñaan bu baax yàlla gën koo yokk wér ak kattan ba li mu bëgg a liggéeyal sëriñ bi lépp mu mën koo liggéey ci coobareem di ko jégalu bu baax itam ci kàddu yi waaye xam ne ne lépp ci ndigalam la ngir njëkkanteeg waxtu wi rek liñ ñu ne woon nañ ci waxtaan mooy jikko ju rafet ak taxawaayam ci ak gëdd gi mu am ci biir lislaam ci biir lislaam loolu nag bu ñu koy waxtaanee ci waajtaay yi bisub Cheikh Abdul Ahad dañuy xam ne lu war a am am na ndax Cheikh Abdul Ahad dafa jëmmal Sëriñ Tuubaa gis nañ sax al ustaaz Cheikh Tidiane gay nga xam ne nekkul sax ci tariqa murid waaye xasiida yu rafet ak seere yu rafet yi mu def Sëñ Abdou Lahad dafa wax ne fa ka annama bambal xadiimu xaqiqatan qad aada shaxsan ismuhu Abdul Ahad dafa mel ne Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ci moom moo del si waa tudd Cheikh Abdou Lahad kon moom dafa jëmmal Serigne Touba te Serigne Touba buñ koy wax wax jikko Serigne Touba bu ñu wax jikko ju rafet ci moom la yem borom daarul moxti wax nañ ne daana wax ni sëñ Tuubaa jikkoom bokk na ci li ko boole yu baree baree bari dëgg la mbirum baatin mi wér na lool waaye am na ñoo xam ne jikkoom moo leen boole moo ko boole ñoom jikkoom ju rafet kon jikko di ko waxtaane ci bisu mel ni lu am solo la mm-hmm. jikko nag day loo xam ni mën nañ ne mooy lislaam gis nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi mu koy tagg tegu ko ci julli yu bari tegu ko ci joxe asaka masalan bu bari lim ko taggee mooy jikko ju rafet wa innaka la ala xuluqin azim ba tey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ak mbaax mooy jikko ju rafet ku am jikko ju rafet a xamal ne ku baax la koo xam ne yàlla xañ na ko jikko ju rafet na xamal ne koo ko ak mbaaxam des na mooy li wax ne al birru xusnul xuluq yónnte bi sax àgg na ci wax ne yàlla da ko yónni ngir mu mottali jikko ju rafet innama bu'istu li utammima makaarima al axlaaq mooy yàlla da ko yónni ngir mu mottali si jikko yu rafet yi moo tax mu daa dénkaane lu bari di wax ne wa xaaliqin naasa bi xuluqin xasan mooy yow fexeel ba ni ngay ànd ak nit ñi yow na nga ko rafetal te teg ko ci jikko ju rafet donte nit ñi ñoom jëflante wuñu yow jikko ju rafet mooy li Sëriñ Tuubaa daa wax ne bal i'tabir min nafsika al aadaba wala tutaaliban bihi al asaaba mooy yow fexeel ba yow si jikko rafet rek ak donte nit ñi jëflante yow ci anam googu te jikko day loo xam ni askan wu ko ñàkk waykat ba dafa wax ne booy boo nga dëjal leen te xam ne askan woowu moom faatu nañ wa ida usiba qawmu fi axlaaqihim fa aqim alayhim matawa mataman wa la mooy ay boo demee ci ay nit gis ñu ñàkk jikko yu rafet jikko yu rafet amu fa booy nga dëjal leen te xam ne boobu société boobu société moom dee na te sànku nañ itam jikko yitam di ay fànn yu bari am na jikko yoo xam ni nit ku ne la soxal lu mel ne fegu ak jub ak dëggu ak yi ni mel yooyu kenn ku ne nit ku ne soxal na la te war ngaa fexe ba jikkoo ko waaye am na yoo xam ni da ko war a jikkoo ci biir njaboot gi nga ne lu mel ne baax ci say wayjur ak baax ci say say doom ak say soxna ak sa njaboot ak ñi nga dëkkal ak sàmm xaqi dëkkandoo loolu ci jikko yi nga xam ne moom nga war a jëflanteeg ñi nga dendal ci ak dëkk la bokk ak lu mel ne jokku mbokk masaran waaye moo am jikko yoo xam ne ci société bi yëpp nga ko war a jëflanteel te mooy lu mel ne wóor ak loo wax def ko di matal kóllëre di defare ab diggante di dimbale ñi ñàkk moom jikko yoo xam ne bu ñu la dénkee mbir nga jiite ay nit ci boobaa boobaa la lay nga ko war a jëflanteeg ña nga xam ne ñoom nga yërif te loolu mooy lu mel ne maandu ak di diisoo ak ñi la suuf te di fexe ba dëggu ci li ngay def say wax ak say jëf mooy loo wax nga fexe ba def ko waaye mu am jikko yoo xam ne sa diggante sa borom la dox mooy lu mel ne topp yàlla ak sant ko ak gërëm ay dogalam ak bëgg ko ak ragal ko ak yéen demee kon jikko yu baree bari la fànn yu baree bari la muñ ci jikko la bokk fegu ci jikko la bokk ju rafet njàmbaar ci jikko ju rafet la bokk maandu ci jikko yu rafet yooyu la bokk fexe ba sa xar kanam tàlli di bëgg ci kanam nit ñi loolu ci jikko yu rafet yooyu lu bari la bokk di dumóoyu lu bari itam bañ di gëstu sikki nit ñi yittewoo sa sikki bopp loolu ci jikko ju rafet la bokk lawet ak di doxal doxalin wu rafet ak moytu xastante ak ngàññente ak di jéggale te bañ a def kenn lu ñaaw ak tabe yooyu yëpp mooy jikko yu rafet bu ñuy wax jikko rafet yi mooy yooyu ak sellal ak di bañ a mer wala boo meree it nga bañ a jàpp mer ak dàgg santeeg yooyu yëpp buñ ko waxee mu kon mooy jikko ju rafet mu bari nag lu muy jural nit ki nit ki nga xam ne dafa ame jikko yu rafet bari na lu ko jikko ju rafet yooyu di jural te la ca jëkk mooy ngëm gu mat yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne akmalul muminina imanan ahsanuhum xuluqan ki gën a mat ngëm mooy ki gën a rafet jikko ku la ëpp ëppale jikko gën laa rafet jikko rek moo la gën a sori ci ngëm moo la gën a mat li ngëm loolu la rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax bokk na ci jikko ju rafet li mu lay jural it mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam da ngay bokk ci ñi mu gën a bëgg yonente bi da daa wax ne ñi may gën a jege ëllëg ma gën leen a sopp ci nit nit mooy ñi nga xam ne ñoo gën a rafeti jikko kon boo gisee nit yàlla yi kenn ku ne ci ñoom ku la gën a jege yàlla rek moo la gën a rafet jikko maanaam moo tax ñu tudd leen ay sang sang ak sëriñ bokkuñu ab sang ak càng jikko la kilif sunu kilifa yu baax yi loolu la ñu ëppalee mooy jikko ju rafet bokk na ci yi nga xam ne moom la lay jural itam mooy da lay boole ci tànneef yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara wax ne inna min xiyaarikum ahsanukum wala ahasinukum axlaaqan ñi gën a baax ci xeet wi gën ci yàlla gën leen cee tànn mooy ñi gën a rafet jikko bokk na ci meññet yi nga xam ne moo nekk ci jikko ji rafet mooy ëllëg yowmal xiyaam yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne lépp li ñuy teg ci balance la ci gën a diis gën caa rëy mooy jikko ju rafet wax ne yonente bi wax ne sunu borom dafa bañ ku ñaaw làmmiñ ak ku ñaaw jikko yonent bi wax na sax ni nit ki dana ame ci jikko ju rafet loo xam ni dëkke koor ak dëkke fanaan di taxaw di taxawe guddi yi di ko julli du la ko may inna al mumina la yudriku bi xusni xuluqihi darajata saaimi al qaim maanaam da nga ci amee darajay dëkke koor ak dëkke guddi yi nga di ko fanaanee taxaw di julli kon meññeet yi nga xam ne ak yi nga xam ne moo nekk ci jikko ju rafet yu bare bare bare la yonent bi dara wax ne am na ñeent yoo xam ne su nekkee ci yow xamal ne dara ñàkkoo ko ci àdduna dara rawu la itam te mooy bu fekkee ne wóor nga ba ku la dénk mbir mu ne nam la ko dénke woon noonu la ko fekkee waat te say wax dëggu doo wax mukk safaanu dëgg te sa jikko itam rafet nga fegu itam loolu na nga xam ne bu waa ñàkkatoo dara ci àdduna rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo daa wax loolu danaa wax itam moom yonent bi sallallahu alayhi lu bari di dénkaane jikko ji rafet loolu bari na lool ci ci ci wax yonent bi sallallahu ci ku ko seetlu di nga gis ne bari na dénkaanam yëpp daanaka ci jikko ji rafet rek la jëm gis nañ moom yonent bi itam sunu borom bi mu koy dénk ci alquran da koo dénk jikko ji rafet xudil afwa waamur bil urf wa arid an iljahilin wa innaka la ala xuluqin azim bi ma waxoon léegi jikko ju rafet mooy li dugal nit ñi man a ne ci lislaam lislaam li ko yaatal bam mu agsi fii mu agsi mooy jikko ju rafet xam ngeen ne am na sàmm ba arab bu mas a ñëw ci jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallama di ko laaj mbirum diine moom xamutoon dara boobu ci diine bi mu agsee yonente bi di wax ak moom ci lislaam mu jekki-jekki yëg ne dafa bëgg a tuur ndox mu ne yonte bi may ma ma tuur ndox fii ñëw nu àggale daal dem ci mimbar ba fa yonte bi jullee mu daal di sukk foofee tàmmalee tuur ndox saxaaba yi ku mel ne Seydina Omar ñëw dab ko bëgg ko jëflanteeg moom yonte bi ne leen laa mu muufu maanaam bu leen dog tuuram ndoxam kooku bàyyi leen ko ba mu àggale ci jàkk yonte bi sallallahu alayhi mu def la muy def ba àggal daal di takkaat dégg nga am moom moom kiyam daal ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko xanaa xamoo ne sunu jàkka yi defuñu ko ngir lu mel nii nga def fi doon def mooy tournoi dañ ko fi def ngir di fi jaamu yàlla waa ji bëgg ba dugg ci lislaam daal ne yàlla nag yàlla maa ngi ñaan allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham maana ahadan mooy yàlla maa ngi ñaan nga yërëm ma maag muhammad mi te gaañ ñi bu leen yërëm ndax ginnaaw ñoo ko naroon duma moom bu leen loolu dañuy gis foofu jikko yonte bi sallallahu alayhi wasallam rafet moo tax kooku dugg ci lislaam loolu bari na lool ci histoire yonte bi sallallahu alayhi wasallam am na kenn ci saxaaba yi koo xam ni daana wax lu bari ne keroog bi may ñëw ci yonte bi loolu ñu bari la ci saxaaba yi ñoo xam ne dañoo ne bi may ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam moom la mooy ki ma gënoon bañ ci nit ñi waaye bi ma ñëwee fi moom bi may dëpp mooy ki ma gën a sopp ci jaam ñi kon jikko ju rafet yàgg naa dugal ay nit ci lislaam moo tax suñu borom wax ko ne ko fa bi ma rahmati min allahi linta lahum wala kunta faddan galida al qalbi lan faddu min xawlik soo amoon jikko ju ñaaw dëgër boo kenn du la jege te nit ñi duñ mën a am duñ mën a jariñu ci yow kon jikko ju rafet buñ la ko doon tënkal mën nañ koo tënk rek ci li Sëñ Tuubaa daa digle te mooy yéene yéenew yow Sëñ Tuubaa daa wax baat yu am solo yoo xam ni yu gàtt la da ko tënk sax ci aw bayit te mooy nee na in wi waqul wafaal wa laazim taslami mooy danga nga yéenew di waxu yiw di jëfu yiw te sax ca boole ci loolu sëñ bi dara wax ne ku ci sax di nga am jàmmi adduna te di nga am jàmmi alaxira sëñ Tuubaa itam ci silkul jawahir nettali nañu fa loo xam ni ci jikko ju rafet lay lay lay dugg na wax na benn jaamukatub yàlla boo xam ni jaamu na yàlla ca fa mu nekkoon juróom benn fukki at yoo xam ne mësta wàcc suuf di jaamu yàlla rek ab labbe la ba amee juróom benn mu wàcc yor aw mburu nee na dal di romb nit salax ko ko ba mu demee nag ca dëkk ba di doxantu wala ca dex ga romb benn benn soxna soxna sax xam naa fitnaal ko mu dem ba jëflanteeg moom ba njaaloog moom yàlla dogal nag bi mu njaaloog moom rek yàlla jël bakkanam mu daal di faatu Sëñ Tuubaa ne yowmal xiyaam suñu borom da leen di wax ñu peese juróom benn fukkaat yee mu jaamu yàlla ak njaalo gi mu def njaalo gi wat ko waaye mburu mi mu sarax waa ji itam ñu peese ko ak njaalo gi mu mu wat njaalo gi mu mucc nga xam ne def lu baax ak jikko ju rafet lim mën a jural nit yàlla rek moo ko xam bari na nit ñu baax ñoo xam ne jenn jëf ju baax juñ defal doomu aadama te yàlla tax ci leen yàlla gindee ku ne xam ne ci nun Malik ibnu Dinar na ci góor yàlla ku ñu xam Malik ibnu Dinar wax na ni moom da doon liggéey ci wàllu euh, li ñuy wax takk der yi la ab takk der la doonoon nekk ci marché bi benn bis la gis waaju lijjanti ci marché bi lam lijjanti bay dellu këram am ñu ko kar nar koo nangu mu ne leen xanaa xamu leen ne man de am naa ñetti fan yoo xam ni dara duggut sama biir te dama am njaboot gu sew ay jigéen yu man doon yóbbul xewal gi du ngeen ma dimbale xanaa jox ma ko ma yóbbu ko Malick neen bi ma déggee sama xol yërëm ko ma dal di dem nongu gaayal lañ lañ jëloon ci moom joxaat ko ko ne ko nag boo demee sa njaboot googee buñ demee ba xewlu ba suur na nga leen tudd sama tur rek Malick ibnu Dinar fekk njëkk loolu Malick nee ku doy waar laa woon lu ne daanaa ko def waaye nee na keroog ca bis boobee ba ma àggee ca sama kër damaa am damaa doon beneen nit damaa doon beneen nit yëg ne ak soppiku am na ci man bu wér a wér a wér kon jikko ju rafet mooy loolu buñ seetloo nit yàlla itam foofu lañ rawee ñëpp ki ñuy wax sahlu sahlu sahlu ibnu ibrahim dafa wax ne ibrahim ibnu adham dañoo ànd cib tukki ma wéradi lam yoroon ci xa ci alal lépp mu def ko ci man ngir faj ma bi ma demee ba soxla lekk itam mu jaay sax mbaam mi mu yoroon ngir ngir ngir ñu dunde ko nga xam ne amatuñ lu ñu war nee na ci tukki bi itam mu mujj ginnaaw amuñu lu ñu war te man wéradi naa moo may bootal bawam gis nga loolu jikko ju rafet la am na ku ñu xaatimul asam ci nit yàlla yi lañ ñëpp xam ne ko tëxuloon al asam lañ ko waaye taxul mu tax la ko waral mooy nit dafa mas a ñëw fi moom dal di ngelawal mu tëx tëxlu war ne ko dégguma ko ba far jaare fa nag diirub dundam li des ci dundam muy tëx tëxlu ngir rek bañ koo ko rus loolu lu bare bare bari la buñ seetloo itam bu ñu wax jikko ci rafet ni ma ko waxee mooy Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa mooy ki gën a rafet jikko ci li yàlla sàkk waaw li mu wax ne kaw niya tahiral fuaadi wal jasad mooy noonam yi sax lu ñu ko iñaane iñaane ak luñ ko noonu noonu xam nañ ne moom yàlla daa seetal xolam yàlla daa seetal xolam seetal jëmmam laabal ko loolu moo tax ngeen gis mu jéggal leen loolu dara gën koo rëy Sëñ Tuubaa xaajub ak ak dundam fanweer lu xaw a jege fanweer at lañ ko jël di ko kawti kawte fu ne ñu yóbbu ko fa magum jëmm nga jël ko deful la dara ñoom ci wax nañu ko yow tooñooñu waaye dañ lay génne rek yóbbu ko juróom-ñaari at ca Gabon bi mu ñëwee fii ci réew mi juróom benn weer rek la fi def ñu yóbbu ko ca Mauritanie juróom euh, ñeenti at ginnaaw bu ñu yóbbu ko fële ci yéen juróomi at indi ko fii ci njaareem fukki at ak juróom résidence surveillée boo xam ne mayuñu koon sax mu dikk ci dëkk bi Touba te Touba rek la bëggoon a ñëw ilaahi ila Touba ya xut nii wa salliman wax na ci bay bi bare bare bëri ba pare ànd ak loolu lépp mu ne jégal naa leen ci xol bu afawtu an il aada yi turran li wajhi man nafahum li gayri sarmadan lastu adfaw am na fu wax ne afawtu li wajhi llahi maa safwi kalkali maanaam xol bu sedd guy laa leen jéggale loolu foofu rek lañ ko mën mas a gise loolu jikko ji rafet foofu rek yam boo ne ko yërmaane jëm ëmbaloon nga xam ne danaa ñaan bay ñaanaaleel tubaab yi wal takfihim azaaya ya rabbi amin maanaam day ñaan bay ñaan yàlla bu ko yàlla def dara luy lor man a di bàyyi ko ci moom di jëm ci jëm ci keneen irham jamii al waraaya loolu loolu la wax yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamii al wara yow mi yàlla mi nga xam ne ëpp nga di fayontoog nit ñu ñi doomu aadama yi maa ngi lay ñaan nga yërëm mi def yëpp wal tarhamil xalqa yaa man jaddahum bada maanaam na nga yërëm mbindeef yëpp te mbindeef yi tubaab yaa ngi ci biir mag ñi mu yaroon fii itam jikko yu rafet yooyu moo nekkoon ci ñoom tur yi laay bañ wax nii ngir ngir ngir ne xaw xisa bi xaw a demee waaye lu wér la kenn ci mag ñaanoon sëñ bi sëñ bi tër bu yàlla ko boobam ba wàcce ko ba fi ne nii ay sëtam a ngi fi dafa am keneen ci mag ñi koo xam ne xaritam la woon sëñ bii may wax ni yabal ko ci soxna sum doon lijjanti mu dem gis ne moom yitte woon na ko mu takkal ko boppam bi mu ko takkalee moom daal di lijjanti nar a yóbbu këram waaye sëñ bii bi mu ko déggee dana ko damaa xamutoon ne yitte yitte woo nga ko waaye liñ ko naroon a waajale fii dañ ko yóbbu ñu waajale ko sa kër maanaam nga xam ne li ñuy wax isaar wa yusiruna ala anfusihim ci ñoom la yemoon mag ñi noonu lañu am noonu lañ meloon ci mbaax ak kenn ku ne sa moroom jariñu moo la gën loon sa bopp nañ ku mel ne sëñ Mahmoud Mbégare nga xam ne ñëpp xam nañ ko sëñ Tuubaa am na fu mu ko yebaloon booba mi ngi jaasi ay nit dogale ko jël alalam ga sonal ko ba jëflanteeg moom te mi ngi ak jaasi ji génnewu ko bi mu ñëwee sëñ bi laaj ko lu tee nga génnoon jaasi ji mu ne ko dama mérutoon moo tax dama mérutoon kon am na ba ci suñ kilifa yi mujj yi am na ci loo xam dañuy romb nu di ko gis te duñ ko bàyyi xel man maa ngi net li rek kilifa gu baax ngoo xam ne jóge na sëñ Fallou Assou Dieye ko yàlla dolli dolli yërëm dolli ko leer dafa ma saam kenn ji mu àndal moom laa dégg mu di ko nettali nee na fii ci dëkk bi dafa ñëw Touba fii ci këram gi am dayira buñ ko fi jébbal ca la muy liggéey fa da ca ceen xaalis bu bari nee na mu génn dugg ci biir foofu ci wetu garage bi ñu ñu tafa ko am ku ko jël ci ci ci moom bi ngi ko jëlee nag waa ji mu àndaloon nee na mbir mi metti ma metti ba may móolu waa ji ak di ko ñaanal ak di ko wax lu bon nee na bu ñu noppee mu ne ma nan dem bi ñu nan dem jumaa ji ñu dem jumaa ji siyaar ci bërëbu sëñ ba ne ko dama bëgg nu waajal fii nii li tax ma ñëw fi mooy dama bëgg nu ñaanal waa ji jël xaalis bi yàlla defal ko lu mu am lu mu man a jàpp ba dootu sàccati yow mi itam li nekkoon ci sa xol ci ñog ñagg-ñagg laa bëgg nga nga jéggal ko ko ba mu set wecc maanaam jikko yu rafet yu bare bare la mën nañ ko dunde ci dundi kilifa yu bare bare bare kon jikko ju rafet lu am la lu am solo la loo xam ni bari nay meññet te jamono ji ne nu soxla ko lool jikko yàqu ci fànn yu bare bare bare bari boo ñëwee ci biir njaboot gi da ko ci seetlu ak ci xew-xew yépp ba ci jumtukaay yi ñuy jëfandikoo daanaka lu yàq jikko ak waxante lu ñaaw loolu kenn ku ne seetlu na ko ci sunu biir dund gi mel waxtu bi mi ngi sori damay ñëw rek ci wax lan mooy saafara si lan mooy saafara saafara si de man damaa jàpp ne la ci gën a gaaw mooy dellu ci faru sëñ ba bàyyi woon rek sëñ Tuubaa dara wax ne summa summa dawaau jumlatan huwa rujuu ila ilahina taala bil xusuu kama rujuuka li rabbil kalbi yakunu awla min anaayi darbi mooy boo xamul foo jëm da ngay fa nga jóge woon maanaam bu ci sëriñ Tuubaa dellu ci jëfe ndigali sëriñ bi bàyyi ay terem danañ mucc te boo àdduna sépp danañ ci fekk si te Sëñ Tuubaa bi mu fi nekk itam mboolem ku mas a ñëw fi moom fi mu la jaarale foofu rek mooy mën hëj bi nga xam ne moom la moom la bàyyoon di fi jaarale nit ñi mooy mën hëj bi moom tër bi tarbawi bi nga xam ne moom la doon tarbiya te Sëñ Basiir indi ko ci minul baaxal xadim mooy ku ñëw fi moom la muy jëkk def mooy dana la jàngal li nga jàngi dana fexe nga jëfe ko ndax dara wax ne njàngum kese moon tëg jëf amul moom moom mu amul solo mooy bayitam woowu nga xam ne lu bare bare rek binaa iya binaa ilmin ñu ngi ko waxee binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi wajaal binaa iya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi boobu bi mu tabax Touba bi muy dëkk si Touba boobu la ko fa wax ca matlabul fawseyni mooy lii may tabax na doon tabax bu tegu ci xam-xam ndax lépp loo gis ci àdduna ak lu ma a doon bu tegul ci xam-xam du am solo du sori itam te day yàqu rek nag moo tax sëñ bi jiital ci xam-xam wajaal binaa binaa ilmi waaye xam-xamu kese itam boo teg jëf amul njariñ moo tax mu teg ca wa amalit te waaye jëfit lu mu rëy rëy te tegul ci sunna si yonent bi du am njariñ ba tey wa amalin bi sunnatin sunna itam lu mu am am solo nga di ko doxe itam boole ko xadar ak tàngoor di rey nit ñi loolu amul solo moo tax bi teg ci wa xilmi nga xam ne bayit woowu moom daal na indi mboole mën haju sëñ bi waaw wajal binaa i binaa ilmi wa amalin bi sunnati wa xilmi mooy sunna itam boo ko àndee danga koy boole jikko ju rafet ak lewet ak yërëm mbindeef yi te xam ne ñu ngi ci fi qabdati rahman si mi la daa doxale ku ñëw fi moom dana la jàngaloo njàng mi seetewu ci woon kenn dana la liggéeyloo itam ngir dind ci yow taayal ak rëy dana la tuddloo yàlla tudd gu bari itam dana la suub ci ay teggin itam teggin yoo xam ne ci wax ak ci jëf ak ci lépp mag ah, ma ngi ci seen teggin daa feeñ ci lépp dana la suub itam ci di la dénk di wax ak yow waxtu wu ne loolu suñ basiru neen noonu la daa doxal ak ñoom digal lañu itam njaboot gu sew gi itam ñu yar leen ndax nit ki du dem ba mag nga doog koo bëgg a tàmbalee yar ca ba muy door a gane nekk ndaw foofu la tàmbalee Seydina Omar dañoo wax ne dafa am benn waay bu ma sa ñëw ci moom di ko jàmbat doomam Seydina Omar woo doom ji di ko yedd doom ji ne ko bala nga maa yedd da may laaj da may laaj fu ma jaar ak sama waajur wi moom moo ma njëkk a tooñ waajur wu jigéen ba ma wutal dafa dem fekk ka nga xam ne dëkk bépp dañ ko fa bàyyi sikkal ko nga xam ne kenn bëgg ko kenn jëlu ko mu dem jël ko mu nekk sama waajur wu jigéen foofu la ma njëkk a tooñe bi ma juddoo itam ma waroon na mën a wutal tur wu baax wu xam mu tudde ma gunóor bi nga xam ne mooy mooy bërëng eh, ay demaat nga xam ne mi ngoog mërëngaan tur wi laa doon moytu ne kon ba ma waree jàng itam jàngalu ma xanaa di ma sàmmloo ba ma toll nii ma toll kon moom moo ma njëkk a dog bi ma ko dara dog Seydina Omar ko wax nga dëgg yow baay bi yow yaa def lépp ndax xale boo ko amee la nga war a jëkkee moom mooy wutal ko ndey ju baax bu juddoo nga tànnal ko tur bu baax te yar ko jàngal ko loolu Sëñ Tuubaa digaloon nanu ko xamal nanu man Sëñ Tuubaa bayilu nu dara dara dara dara teggin yi nga xam ne moom la gone yi war a jëflanteeg mag ñi wax na ko fala tujaalis man yakunu akbara minka bila daruratin mooy booy toog ak mag na nga toog ak moom ci kaw ak wegeel ak ak dal te bul ko ñooxu bul wax te wax jotut te bul baylu ko rek lu la neex wax ko fi kanamam su la bëcc itam wala mu wax la lu la naqar itam na nga ko muñ te waxtu ne dee ko dogal dogal ngant maa ngi jégglu te bul ko xool jàkk del damm sab gis te loolu ni nga koy defale mag sëriñ moom da caa raw waaw bu la mag mag bu la bëggee yónni bul xaar boo gisee mu bëgg ko rek yow gaawal dem doxali ko loola te loolu ni nga ko defalee say waajur itam noonu la ko waxee wa birra walidayka kon bihima wa yi mubadiran am amrihima mooy say waajur it nanga leen fonk dayoob fonk baax ci ñoom dayo baax te wormaal ñépp ku la mag nga def ko ni sa baay ku la féete ndaw nga def ko ni sa doom boo nekkee ci tukki ak yu demee noonu yëpp sëñ bi wax na ci lu bare bari maa ngi gàttal foofu di jégalu bu baax a baax itam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.